jërë ngeen jëf ci seetaan beeg topp bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu yéen ci seen chaîne HD 221 TV ñu leen di ñaan rek ngeen wéy di abonné ñuy wéy rek di leen jox xibaar yi wér te woor ba tey rek ñu dooreel ko ci uh, procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang mu mel ni kat uh, mbir ma jeexal nañ ko niki uh, démb foofa ca tribunal bu Ndakaaru Ndiaye ndax àtte nañ leen ba daal di daan ki nga xamante ni mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko waaye kii di Mame Mbaye Niang for nañ kat ci wéy bi bu ñu sukkandikoo ci waa PEP daan euh, ma ngay waajal beneen plainte daal di koy jëmale euh, ci kii di Ousmane Sonko di maire bu Ziguinchor la nag du leen rek lu dul kii di Ousmane Sonko ni démb rek moom teewul euh, foofa ca tribunal ba ngir mën a fekkee li nga xamante ni mooy procès boobule kii nga xamante mu sukkandikoo ci waa journal la ñu xamle du leen rek lu dul procédure bi mën naa tourné wu ci ki nga xamante ni moom mooy docteur Samir Simon Boulous ndax moom kat daanaka rek. rek moo euh, def ab certificat médical euh, buy wane ne kii du Ousmane Sonko mënta génn këram benn yoon euh, ngir rek dem ci procès boobu lee ña ko xam ne di waa avocat am yi ñoom ñoo justifié loolu daal ne kii du Ousmane Sonko absence am munul ñàkk benn yoon ndax ñi yëpp rek médecin bi mi ngi ko xaatim ci li nga xam te ni mooy certificat médical boobu le requête bi nag ñu ne boo moytuwul du demee noonu benn yoon ndax li ko waral du leen rek lu dul kii du Ousmane Sonko daan nañ ko ci euh, ba sax euh, mu am ay euh, koppar yu takku yum ca war a fay ak ñaari weer yoo xamante ni ñaari weeru kaso bu ànd ak sursis la ci noonu nag ñu nemmeeku ne bu ñu sukkandikoo ci waa Seneweb xam ne nañ ne loolu kat mënta tee kii di Ousmane Sonko daal di participer ci li nga xamante ni mooy candidat yi war a dem ci élection atum 2024 nekk élection présidentielle mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fees ñu ngi leen di ñaanal jàmm dinañ jox yoon incha allah.